daje ci bis bi ci jàkk ji jënd nañ tàpp yëpp indi nañ ko ci daara ji. léegi kii tamit dama ko indi woon boo xam ne ñoo ko toog jox ko bàyyi ko jox ko ñoo ko barkeeloo tuuti. leeral ko ko. kaamil kaamil Touba sëñ Naar sëñ bi nee na yàgg waa turki yi nga àndal yëg na seen liggéey démb tey door a ñëw sëñ Isaaxa wax na ko ko jàppal leen ko muy kóllëre buñ fasante woon nag yow nga jàppal leen ko sëñ bi nee na jàppal na leen ko nee na jàppal na leen ko am naa dee soxna jaara ji beneen bi ci topp mooy ñoom dañ laa indiloon ay dàll ca Touba nga wax leen ne yi nañ ko indi ca daara ji biñ ko indee ci daara ji dañoo ñëw ci bis bi fekk ñuy réunion bëgg ay tapis yu ñu lal ci classe yi ngir na nga waxoon saña boo jaxate camion bi def liggéey ci bitti bi mu dem daara ji wala mu xaar ñoom leeral naa sëñ bi seen seenu liggéey leer na ko nañ itam nag lu ci bare bare bare bare xam na ko am nañ tàmbalee ba fii ñoom ñii nag bi ñuy day dal yi mujj indi ci sëñ bi Touba. waaw waaw. sëñ bi dañ leen nañ ko indi ca daara ja waaye bi ñu egsee ci daara ji nag dañ faa fekk dañ faa indaale positif bu rëy mooy dañoo ñëw fekk ñuy def réunion ñun gis ne classe yi war nañ cee def ay tapis. Ah, foofu la jógee loola dañ caa yem. waaw waaw. ci yemee fi saasi rek. Uhuh, uhuh. lañ woo bokki taalibe yenn turki fi saasi. Uhuh. ñooñu dal di daje ci jàkka def réunion. ñu daal di yónnee nombre métrage bi nga xam ne moom la ñu soxla ci tapis ñu daal di daje wut ko fi saase waaw dañ ne woon nag dañuy bàyyi bu ñu siyaaresee indaale tapis ndax dàll yee moom indi nañ ko ba noppi. waaw sëñ Sadee wax na ko ba noppi am amaat yi tey nañ nun lu ne ñoom nañ ko xam. suñ ko xamee la cay seen wàll. danañ ko def te buñ ko defee ba noppi danañ ko xeeb. loolu loolu leer na sëñ bi. moo tax ñu ne dañuy ñëw leer na. ah mille mètres loolu lu yàgg na qualité bii la ñu indi. a ah, mbaa nii la mel wala mu gën a soxla wala wala. nii la mel ah, ah, ah, dañ cee taamu woon. ñu wutal ñu yoo xam ne nii bu bu tilimee man naa baña feeñ. mën bañ feeñ moo tax ñu wutal ñu yi ñoom dañ cee dàkk suñu bëgg ba noppi. door koo def. waaw ñoom noonu lañ def doxaleeg noonu. waaw kon kon foofu amoon na aspirateur. am nañ ko. xam naa nag da ngeen koy yokk. waaw loolu a ñoo ngi sàkkuwaat bu dañuy ñaan rek eh, soxna yi am na ñoo xam ne ñu ngi fa commencé dee mu njaboot te fi mu toll soxna jaare ngi fay commencé bari wax dëgg moom maay seer Baye Fall comme li leen ko ñuy sàkku nag licence boo xam ne mu tolloo ci dem ci daara ja rek dana mën a yemb ci ñoom jamono yëpp nag ñu ma koy sàkku ma ne ko bu neexee sëñ ci waat naa ko yegg sëñ bi bitti moom toujours maa koy ci jéem maay jéem. Mhm. waaye ñu daara ji demee daa tax mun mënut a bari lool ndax. Mhm. Ablaye moom wax mhm. waaye teewut nag incha allah. dañu dem ba nga xam ne lu mu tuuti at mu jot ngeen am. ñoom am ci benn kii waaw waaw waaw. kon waxtu wuñ toll rek ma jox la. incha allah ki ci toll. merci dañoo wax ne léegi bi ñu ñëwee ci sëñ bi. koo jox lii. wax ne moom gi sëñ am moom alxuraan. te waxe ko nu ne ci wet gu ne moo tax lii ñu jëmmal ko ci ni ko sëñ bi waxe woon mu lig tuhu hadiyatan wa sadaqa wa samanan wa li yudimu nafaqa moo tax ñu jox la ko addiye sëñ Tuubaa waaw kay jërë ngeen jëf soxna yi moom xam naa lii moom namoon nañ ko sax nag ah, la <laughs> ñëwaat ak yéen Istanbul mm. kon nag ñoo ngi ciy gën a sant rek bu baax a baax di liggéey bi itam man daf maa dafa dafa xam naa ne gaaw na lool daf maa bett sax nag te itam day loo xam ne nii mm. xam naa ne lu mel noonu rek mooy tax xel dem ci mm. waaye da mënutoon a ñàkk te xel nekku ci woon lool looloo tax euh, alhamdulilah ñi nga xamee ne kon dem ngeen fal defal ko ci seen bopp gis ko xam ne lii mënut a ñàkk ngeen daal koy sasoo daal koy def nekk ci saasi te itam loolu bari loolu wax dëgg yàlla kon nag yàlla ngeen koy gën a man rek da lu ngeen ko ñi ngeen ko lu ngeen ko ci maanaam wax nañ leen ko te ngeen kii ko rek ngeen daal di ko bëggee jërëjëf jëm noog dañ sant bu baax nag jigéen leen <laughs> da nga a biir ma leen ñëpp waaw kay waaw waaw waaw xam naa ko xam naa ci dara kay. waaw waaw waaw Cheikh ah, wax nga dëgg kay wax nga dëgg. waaw leen góor jërëjëf. mbokki jullit asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ngi leen di nuyu mbooloo mi fi teew ak ngi nuy bàyyi xel di leen ziar leen baalu te leen baal àq di jiital ci nuyoo ak ziar bi Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha. di ñaan yàlla suñu boroom yàggal ko fi te wéral ko ba naal yi nga xamante ni bii fekk na gaa yu baax yi naal ko Serigne Touba mu yeggale naal yëpp ak naal yi boppam yi nga xam ne moom la naalal Serigne bi mu yeggalal ko boppam taxawul ko boppam te ànd ko taalibe yëpp ak jullit yëpp barki borom Touba ñuy amaat mbégte nag ak contentement ci daje bii nga xamante ni bii moom la ñu daje di ay taalibe yuy sàkku ngërëm képp di daayira boo xamante ni mi nga bàyyi ko ba Turki suñu jëwriñ ji Serigne Amdi Moustapha Guèye jiite fédéral daayira bi nekk foofu yëpp muy daayira yoo xam ne dafa ajuwaat ci biir daayira bii nga xam te ni moo fi teew sëriñ am di jiite ko am di mu Moustapha Guèye mii ak mbooloom jëwriñ ñi nga xamante ne bii ñoom la seqal liggéey bi sëriñ Abo ñu ngi lay ziar na maam Awa Dem ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax ak sëriñ Abo Jaxate di ñaan yàlla suñu borom liggéey bii ngeen di liggéeyal sëriñ Touba ak soxna Jaara ci gone yi yàlla na ko sëriñ Touba ful ba mu njaboot gi yëpp ñu jote nag si jëwriñ ak mbokktaal bi nga xamante ne bii ñoom la bokkal liggéey bi muy kilifa yu ñu àndal yëpp muy commission culturelle bi nga xamante ne bii ñoo nekk Turquie ak imaamu daara ak ñëpp teew nañ fi ak kilifa yi nga xamante ne bii ñoo yor bi ak it daayira Soxna Jaara bi nga xamante ne bii moo nekk fee ci réewum Turquie ñoom it teew nañ ñu àndandoo jébbale tey liggéeyu daayira Serigne Touba yi nga xam ne moom la ñuy dajal at mu nekk di ko jébbale Serigne Mountakha nañu ko daa defee at mu ne ren mu yaatu ci ndigal li nga xamante ni moom lañ jote woon ci sang yu baax yi jële ko ci sunu sang bu tedd bi sëriñ Naar Diop Assane di ku yàlla baaxal ñu ñaan moom it suñu borom yàggal ko fi ndax moom it lii mën na ne ci moom la sosoo ndax teewub liggéey bi nga xamante ni moom la fi doon liggéey si moo waral ba lii sos si muy moquette yi nga xamante ni bii moom lañ amoon ndigal 800 mètres carrés yoo xamante ni bii moom lañ waroon a moquette daara ji. boo ko jëruñ liggéey it yëgee da koy def 1000 mètres kon liggéey bi ci 1000 mètres carrés la toll jëw ñu di sàkku it si naar bi nga xamante ne bii doon jégal sëñ bi ci naar bi nga xam moo ko liggéey waxtu woo xamante ne bi mu ne bu masut it mën nañoo amaat même qualité bi ak même couleur bi loolu pour ñu dalal ci xelu sëriñ bi bu baax a baax a baax a baax ndigal li nga xamante ne bii sëriñ Ablaye sëñ Isaaxa jox nañu ko ak it léegi muy jëm ci euh, aspirateur yeeg ya ci aju incha allah rabbi ñu ngi koy ñaan sëriñ Touba ndax ab ab mag dañoo wax lu am solo dañu ne liggéeyal sëriñ Touba lu am solo la waaye Serigne Touba liggéey loolu da koo gën a wér te ñun gëm nañ ne lii Serigne Touba moo ni liggéeyloo kon ñu ngi ciy sant Serigne Touba bu baax a baax a baax a baax a baax di sant kilifa yi nga xamante ne bi ñoo lañ fekk si te di leen ko jébbale di ñaanit ndigal loo xamante ne bii lépp loo xam ne cere réew mee ñu nekk muy réewum turki ab liggéey mën na faa jóge ñëw fii ci daara Soxna Jaara ji noo ngi koy sàkku ngir jëmmi Serigne Touba ngeen baaxee na ko te jëmmi sëriñ bi rek tax ndax fas yéene nañoo ànd ak yéen ci liggéeyu soxna jaara bi li àndandoo ko ak mun Muntaxa ndax danoo fasante moom kóllëre goo xamante ni bii fee ñu fekkoon defal ñu fay loo xamante ni bii jafe na nit defal ko mbokkum jullitam waaye cant gi ñu ko mën a cante mooy liggéeyu sëriñ Tuubaa bii muy liggéey ñu fës yéene jee ànd ak moom suñu kéem kàttan di sàkkul ñaanit mbokki taaliba ya fa nekk te jafe-jafe këyit am ci ñoom suñu borom yombal ko ñoom ñu mën a teew di ànd ñun liggéey ci liggéey bi ña fa nekkit te jafe-jafe ñibbi si mbaa jafe-jafe ñëw seet si njaboot gi am ci ñoom yàlla na leen sëriñ bi tawféexal ñu dabu ci xéewal ba waxtu bu ñu tollee ci fii ñu àndandoo ak ñun ñëw ànd liggéey liggéey bi nga xamante ni bii moom la ñuy liggéeyal sëriñ Tuubaa waxtu bu nekk kàddu yi nag xaw naa gudd waaye ñu ngi koy tuubal sëriñ Tuubaa bu baax di leen ko tuubal te xam ne lu ci jub rek tawféexi sëriñ bi la lu ci matadi ñu xam ne matadi doomu aadama rek jëriñ bu amee lu ci manqué rek ñu àggale ko. yi leen sëñ war a jox nag mm. na ñëpp maase xam ne kàdduy sëñ bee ndax moom bindoo wut noonu waaye sëñ bee ko xamal ne ko ñaari nit wala ñetti nit bu ñu jógee ngir man ba egsi ci barab bi nanga ma waxtaanal ak ñoom dàggil ma leen ñu xam ne alal ji ñu yor joxe ko ci yoonu yàlla lañ ko joxe la muy jur ci njariñ ëllëg ak tey na nga ko wax ak ñoom waaye moom bindoowul sax toog ak mbooloo di wax ak ñoom waaye ndigal la ci am kon nañ ko teewlu te xam ne kàddu yi sëñ Muntaxa lay joxe loolu na ko ñëpp xam bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaara itam di leen ma masawu coono ci yi ngeen jànkonteel ba yegg si fii di leen sant itam ci bàyyi gi ngeen ñu bàyyi xel ba jàpp ne mënu leen li muy xat-xat ak li yitte yi bari bari ngeen seddunu ci seen waxtu ne mënu leen ñoo ñàkk a mu ngi leen ciy sant bu baax di leen jottali cant ci ni ko sëñ Abdoulaye waxee léegi ci turu sëriñ bi di leen ko jottali ci sunu turu bopp ak mbooleem ñi ñu àndal di saytu liggéey bi di leen ko jottali ci mbooleem kilifa yi fi jàngale alquran ak mboolem soxna jaara yi ko fiy jàng ñoo ngi leen di sant ci turu ñooñu ñëpp ndax liggéey bi ñooñu ñëpp ñoo ko bokk mu mel ne ñu ko sëñ bi waxee léegi rek digal la rek ñu ci barkeelu waaye sama cawarte sax matewu ko fi mu ne ndax suba ba léegi mbooloo mu génn meneen dikk mu dikk nga bëgg a sànni kàddu day mujj metti lool waaye ngir yéene rekk moo tax ñu ko def te daanaka ndigal li waaye daanaka am na mbooloo yoo xam ne daanaka wax leen li ñu nekk lu muy jëriñ daanaka xaw naa mën a ñàkk ndax yi liggéey bu rëy bii ku koy liggéey ak mbokk yi ci ñu àndal ñu indi yére yi liggéey yu mel nii ku koy def dafa fekk ne la ngay def xam nga ko dafa fekk ne xam nga la muy jariñ tey ak ëllëg moo tax nga am pastef bu toll nii ndax lu tol nii kat néew na lu ko nit di def ci loo xam ne xamut lu muy jariñ kon fàttalente rek la. fàttalente nag boroom borom ko digle waa zakkir fa inna zikra tanfahul muminin fàttalente rek lañ ci jublu soññente fàttali goo xam ne gi fàttalik jaamu yàlla la du fàttalik goo xam ne sax fàttalik ku fàtte la ah Seydina Omar ibnul Xattaab kenn ci saxaaba yi la ku moo magoon Seydina Aliyu lu bari Seydina Ousmane kenn ci saxaaba yi la moo magoon Seydina Aliyu moom lu bari ba mën koo jur te ñoom ñëpp ñoo ànd bokk ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa te lu Seydina Aliyu mas a dégg ci yonent bi rek mën nga ni dégg nañ ko lu mu leen waar tibbe ko ci alxuraan mbaa waxi yonent bi fekk nañu mas koo xam fekk nañu mas koo dégg waaye kenn ku ci nekk ci ñoom daa nga woolu Seydina Ali mu ñëw nga ne ko waar ma mu waar la ca la ngeen bokkoon xam la ngeen masoon bokkoon dégg mu waar la ba sa yaram xooñ fa daje ci sa day sikkim mu won la ginnaaw am na ci xalifa yi ñu daan wax Amar ibnu Abdul Aziz daana ko def daana woo borom xam-xam yi gën a mag di leen jox addiye ju takku di di sàkku ci ñoom ñu waar ko ci loo xam ne moo leen ko gën a xam ñu di ko waar ba mu jooy ba sonn ñu yewi ko mu yewi ko te lañ lañ doon wax lépp lu mu xam la nag waar gi fàttalente rekk la ñu di leen fàttali ne liggéey bi ci kuy liggéeyal yàlla liggéey mënu koo gën a kawe ndax daa aju ci alquran te alquran mooy li gën a kawe ci lu nekk ci kaw suuf lu ñuy jaamoo yàlla te damay wax ne nit yàlla yépp kenn ku ci nekk sunu boroom gindil na la boppam soo xasee am yitte jóg bëgg a jëm ci moom moo lay joxoñ fa ngay jaar ne yi ngay jaar yegg si ci man kii nga xam ne mooy suñu suñu weeruwaay di say sayxul xadim moom it di kenn ca ñooña jaar ak boromam foofu ba mu amee yitte yegg si ci moom suñ borom da ko wax fu muy jaar ba yegg si ci moom bàyyiwu ko muy làmbatu dallani allahu ala muhammadi wa qaadani muhammadun lissamadi ba mu xamee ne yitteem mat na ci moom rek la bëgg a yegsi dane ko nag kon jaaral ca kee mu dem jaar ca ko jàpp ci loxoom ba yóbbu ko ci moom am na dem na ba am ba mu gën a kawe loolu ginnaaw bu mu ko jaarloo ci sangu sangub ñépp xam ne mooy yoon wa am na fu mu waxee ne dallani allahu yàlla won na ma boppam loolu lépp nag mi ngi ko amee ci jàpp ci alquranul karim fu ne bind na ko fa ba mujj di dëkka di ku di ku boroomam waaye mu wax ne dëkkaale gi ma dëkkaaleeg sama boroom nag jàpp ci alxuraan moo ma ko may jaawartu rabbiya bil furqaani maanaam ci xasida ga dane jaawartu bil furqaani rabbiya waaw waaye jaawartu rabbiya la bil furqaani ci kuy jàngale ci kuy jàngale maanaam dëkkaale na ma ak sama boroom fu ma jaar ba dëkkaaleeg moom dama jàpp ci alxuraan rek ba yegg si moom sëñ Tuubaa moom wax na ci alxuraan itam ci wàllu jàng ko jàngale ko nekku yàlla dénk tut tànk jaarale ko ci yow te xel ma nangu alxuraan nga fexe ba ab dënnam alxuraan nekk ca neena moo gën ci yow gën ci moom àdduna li ci biiram loolu kon ku fonk alxuraan a ngi wax de mu ne it bu fekkee ne xel ma nanguwut alxuraan it nañ ko xamal mulki ak suuf te jàngal koy farataam loolu la sëñ bi daan digle képp ku mas a ñëw ci moom tey gone di tuut tànk li muy njëkk laaj mooy nu mu def ak téere bi mu ne téere bi nag alxuraan rek a tax muy wax ne ko moom de dalagu ko mu ne kon nañ ko ko dalal bu ne toll na ci barab sàngam te yëggagut mu ne nañ ko jox diw mu yeggale ko bu ne watt na ko nag mu doo ko sant seet lu mu koy sant ci di ko ci liggéeyloo mooy di ko jàng ak di ko ko bindal loola ku ko mas man mësulaa def loo leneen lu dul loola ku mu mas a yóbbu ca eh, tool ya ngay bay dugub mbaa ëreen mbaa leneen dafa fekk ne loola dafa xaw a weesu ci yow mu ne ganaaw weesu na ci yow xaaral ma joxoñ la loo xam ne moo moog liyeeyam mooy ñii di jàngal alxuraan ak di ko jàngale te dëkk ci demal di bay di leen indi lu ñuy dunde boo leen dundalee mel na ne yaa ngi jàngal alxuraan mel na ne yaa ngi koy jàngale loolu mooy kon ter ñee ñuy terbiye kon ñi daan ñi mu daan liggéeyloo ci leneen ñépp ñooñu ñu daan tërbiyee ñoo leen daan dundal ah, ngir bëgg leen a yëkkati yóbbu ca loole kon nag loolu itam mooy lii rek fii sëriñ bi dafay indi ñoo xam ne jàng alxuraan ak jàngale ko mooy seenub liggéey ana al-layl wa atrafa an <coughs> ñooñu nag. kon sëñ baa ngi leen di def loo li nga xam ne ku ko mën a defal du la def loo leneen a ah, bu amee ca mbooloo mi nag koo xam ne mën naa def loolu wala xëy na ma nga ca sax am na ci yéen ñoo xam ne ña ngay jàngale alxuraan di ko jàng am ci yéen ñoo xam ne ña ngi koy jàng waaye jàngale wuñ ko waaye nag ñakku ci it koo xam ne féetut ijji ba mën koo jàng sax ndax mbooloo mel noonu waaye kooka sax. ñi ma njëkk a tudd dama leen a jëlale ndax ñooñu ñoom am nañ ay daraja daraja nar cee yokkaat yeneen daraja ndax ba ñu mënee jàngal Alxuraan te di ko jàng di ko jàngale lañu yem ak ñun ñi ñi nekk ci fii di ko jàngale ak di ko jàng ñoo bokkub liggéey waaye nag ñu ñu ëppalee ñu wëlbati ko seen alal di ko ca def te yàlla tawféexale leen alal jooje xëy na te xañ ko ñeneen ah. waaye nag ñi nga xam ne firiñu ijji ñoo ñaag ëppati tawféex ndax ñoo ñoom mënuñoo jàngal xuraan ndax firuñu ñu ji waaye ci seen jëf ji yàlla yëkkati na leen bañ tollook ñu koy jàng di ko jàngale waaw ñu tolloog ñoom daraja di bokk ak ñoom ak pay ëllëg Sëñ Tuubaa dafa wax ne ba ma xamee ne yowmal xiyaam kenn ku nekk suñu borom dalay woo ba nga teew yaag moom képp kenn du leen wettili wa kulluhumu aatihi yowmal xiyaamati fardan ba ma xamee loolu te dañuy ubbi sab téere itam di ko jàng di ko lañ bat amma man utiya kitaabahu bi yamini fa sawfa yuhaasab xisaaban yasiran ba ca des noonu mooy kon mu ne ba mu xamee loolu la tànn alxuraan mi nga xam ne ci sunu borom la jóge jaar ci jibril wàcc ci yonent bi di delluwaat ca sunu boroom def ko ab liggéeyam faw nga xam ne bu ëllëgee bu ñuy ubbi ab téeréem alxuraan rek lay doon waaw alxuraan moom li ci sëñ bi wax kenn mënu koo nettali waaw li mu ci wax lépp kenn mënu koo nettali wax na ne itam alxuraan yi nga xam ne mooy noon yi nga xam ne mooy tax nit du gaaw a yegg ci boromam te ñi jóg jëm ci yàlla yëpp loolu ñooñu loolu di seeni pakk yu leen di pakk di leen eh, eh, yeexal seenub dox mbaa muy tax sax far dootuñu dem yooye la ma ca musal mooy jàpp ci alxuraan am na sunu jenn maam ju ci wax ci wolof di wax ne seytaane àdduna bànneex ak bakkan ñi ngi nii di kenn ngay di di di di eh, ñi ngi nii gembul la seytaane àdduna bànneex ak bakkan ñi ngi nii gembul la ngay kenn ñuy mbooloo te yow yëgu la waaw seytaane àdduna bànneex ak bakkan ñi ngi nii gembul la ngay kenn ñuy mbooloo te yow yëgu la say noona ngi yaa ngi nii boo kër kër këree ba ñu daw loo mën di sàkku lu rëy rëy rëy mu jàppandi la noon yaa ngi noonu noon yooyu nag sëñ Tuubaa dafa wax ne li ma tàqaleeg ñoom mooy jàpp ci alxuraan mooy moom foofu ma koy waxee ci jaawartu ndax ba mu ne jaawartu rabbiya bil furqaani li mu ca teg dane malaktu nafsiya sax saxtu laxin axastu min dunya usaadi lil jinaan wan qaada hawa ay yëpp dàkkul nañ ma seytaane baan sama bànneex topp na ci sama ginnaaw sama bakkan moom naa ko waaw yooyu yëpp ngir ci alxuraan moom yooyu yëpp ci alxuraan la ko amee waaye liggéey bi ñaari liggéey la mooy ginnaaw liggéeyu alxuraan jooju dafa am beneen liggéey bu mu bu mu boo xam ne moom bu kawe la te mooy di joxe sa alal ci yoonu yàlla mooy al infaq fi sabilillah ci ci yoonu yàlla moom it day day kawe dana waral ci tënk dana tax a gudd fan ci àdduna yi ay njariñ lenn ci njariñam lay tudd yaakaar naa ñëpp bëgg a gudd fan dana tax a gudd fan joxe sa alal ci yoonu yàlla dana far bàkkaar am na ko wax léegi nañu ñaanal yàlla fal suñu bàkkaar dana dana far bàkkaar joxe sa alal ci yoonu yàlla li ñëpp bëgg mooy tàbbi àjjana dana tàbbal nit àjjana waaw joxe sa alal ci yoonu yàlla dana tax am wërsëg joxe sa alal ci yoonu yàlla dana yokk wërsëg joxe sa alal ci yoonu yàlla dana barkeel wërsëg ak yeneen ak yeneen ak yeneen ah ba tax na fi ngeen jàpp daal man gisuma fu ko gën a kawe la ca des mooy yàlla na yàlla nangul leen yal na yàlla nangul leen li ngeen seenub liggéey bu ko nangoo yàlla na ko ful te yàlla bu ci seytaane am cër yàlla bu ci bànneex am cër yàlla bu ci bakkan am cër lépp yàlla na yàllay kese ndax loolooy tax ngeen jariñu ci bu doonee yàlla kese rek njariñ la tonawu lool yàlla moom xoolut néew gi ak bari gi xol bi muy jóge lay xool kon nag ku ci joxe junni ak joxe dërëm bu pas-pas ba sellee ñooyam yal na yàlla yokk wërsëg yi ba li ngeen yéene at mu jot ngeen di ko gën a man parce fu na loolu wax dëgg yàlla ndax comme ni ko sëñ lay waxee léegi rek sëñ bi mësoon nañoo gise mu ànd ak lenn ci taalibe yi ñu amoon liggéey bu ñu andi woon ba ma doon ca sànni kàddu di di fàttalanteeg ñoom lu demee ni lii may wax rek ca ba ca soxna si bëgg a kàddu ca la ko waxee woon ne ah, fii ñu toll de bokk na ci yi ñu yittewoo ay tappi yu ñu lal waaw booba la la daal di wax ne rek jàpp leen sotti na waaw jàpp leen ne loolu moom sotti na waaw booba léegi wax dëgg yàlla yàggati na lool te te mi ngi nii dañ ne wax dañoo wax ne jëf nag mën naa yóbbaale wax waaye wax mën ta yóbbaale jëf seen seen seen jëf ji tekki na lépp daanaka jekkeeti di ci wax mën naa ñàkk waaw dañ ko dañ ci barkeelu rek ngir ndigal. waaye xam nañ ni yéen daal wax dëgg yàlla seen pastef sori na yal leen ko yàlla aaral waaw yal yàlla boole liggéey bi ñun ñëpp li ñuy def suñu borom boole ko nangu waaw. Ah, xam naa bu ma naay jox soxna si eh, kii bi bu fekkee bëgg na cee sànni yenn kaddu eh, yu ndénkaan wala soññi mu def ko mu noppee rek ñu ñaanante waaw kay wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki saalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq di rafetlu wax dëgg yàlla liggéey bi nga xamante ne bii moo ñu taxoon a ñëw Poroxaan tey muy jébbale addiyee Serigne Touba ji nga xamante ne bii at mu ne danañ ko jébbal ki fi nekkal Serigne Touba ànd koog jëwriñ Serigne Touba ji nga xam ne moo jiite daayira Kanzul Muxtadin Touba Istanbul Touba Turki gépp rawatina Istanbul ak ñi ci biir fédération bi ci ajoog ñëpp ginnaaw loolu it. jébbal nañ addiya soxna jaara ji nga xam ne at mën a jëwriñ soxna jaara ak ñu ko bokkal daan dajale addiya ji jëbbal ko Serigne Mountakha Mbacké ak Serigne Issakha mi nga xamante ni mooy coordonnateur généralu daayira soxna jaara bii nga xamante ni bii mooy nekk biir Porokhane ren it liggéey bi yokkute yokk goo xamante ne bii alhamdulilah rabbil alamin la ñuy wax ndax mel na ne sëriñ bi daf ñëw liggéeyloo ci biir daara ji nga xamante ni moom lañ taxaw tey di waxtaan ak yéen muy daara soxna jaara ji nga xam ne moo nekk ci biir Porokhane lu ëpp. juróomi téeméer dongo nekk fi di fi sàkku xam-xam di fi jàng arxuwaan di fi wattu arxuwaan ak neen jigéen di demee kër yàlla sunu doom dimbaluñu nag ak dimbalul sëriñ bi ñu am ndigalal sëriñ Tuubaa fa seenee mokkete classe yi nga xamante ne bii moo nekk ci biir école bi yëpp mu tolloon ci 800 mètres carrés ci ndigalul jëwriñ ak bureau bi nga xamante ne bi ñoom la seqal liggéey bi mu yaatal ko ba def ko 1000 mètres carrés liggéey bi andi nañ ko ci diir bu gàtt andi nañ ko fii ci biir Poroxaan daan leen ko wan ci biir yi ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax a baax ñuy bàyyiloo mbokk taalibe yi liggéey soxna jaare bi ak bàyyi xel goo xamante ni bi sëriñ bi na ko bàyyi na ko xel addee sëriñ Tuubaa ji rek ren toll na ci lépp lépp lim bi toll na ci fukki million waaye ci niñ ko séddalee ak la ca aju huit millions lañ jébbal sëriñ Muntaxa muy addee soxna sëriñ Tuubaa ji nga xam ne at mu ne danañ ko jébbal di ñaan ñu yàgg fee ñëw yàgg ko fee fekk yàgg ko ànd ak taalib ak jullit yëpp addee maam Seera Fall ji toll ci un million cinq cent ñu fas yéene koo jébbal sëriñ Amdi di ñaan moom it un million quatre cent di ñaan yéen bi nga xamante ni bi yenu na ko fas yéene ko fas yéene koo liggéeyal soxna jaara suñu borom bàyyi ko fi te kattanal ko mu liggéeyal ko te ànd ko ak Baye Fall yëpp ak murid yëpp addiyee soxna jaara ji it na ci parrainage u sept maam jaara muy 1 million 400 boo xamante ni bii waa kër Soxna Jaara si njiital Soxna Roqee Càndum ak ñi xam ne ñoom la seqal liggéeyam ñoom Soxna Asumba Jóob ak ñëpp rek moo ñoo ñoo ñoo ko doon bàyyi xel doon ko wattu yàlla suñu boom dogal jébbale nañ ko mu toll ci 1 million 400 ci parrainage bi jébbale nañ ba tey it waa kër Soxna Jaara jébbale nañ addiyee Soxna Jaara 1 million de francs CFA Sëñ Muntaxa muy àllarbay Soxna Jaara yi nga xamante ni bii moom la ñuy dajale ci semaine bu nekk kóllëre gi nga xamante ni bii seqoon nañ ko ak Serigne Mountakha fasante ko moom fële ci Turquie ziare nañ ko enveloppe deux cent mille francs ak it Serigne Isaaxa Mbacke mi nga xamante ni bii mooy jëwriñu liggéey bi di kenn ci daayira Turquie ci fànn yëpp. moom it nañ ko enveloppe cent cinquante mille francs ginnaaw loolu ak ziar yi nga xamante ne bii yu noonu dawaan yu noonu def ci aju ak oto bi nga xamante ne bii moo jëlee moket yi Ndakaaru andi Euh, fii ci Porokhane fay nañ ko deux cent mille francs boo ko arrondiree mooy dix millions yi nga xamante ni bii moom lañ leen limal ak la ca aju ñuy santaat Serigne Touba nag mi ñu tawfeexal liggéey bi ñu dajale ko ànd kook suñuy mbokki taalibe suñuy nawle te ñu ci lenn lu dul doyloo ak yaakaar ne mën nañoo ànd wattu liggéeyu Serigne Touba bi suñu borom tawfeexal ñu ñu wattu ko ba jébal ko fi nekkal Serigne Touba jébal ko it ki nga xam te ni moo fi taxaw taxawaay soxna Jaara Buso kon alhamdulilahi rabbil alamin la ñuy wax santaat Serigne Touba li ñaan ñëpp fi teew ren bu teewenee ñëpp teewaat fi kenn bañ a manqué ña nga xamante ne bii ña nga turki it te jafe wala jafe-jafe àdduna jàpp leen ba mën ñoo teew teew yàlla na ko suñu borom tawféexal ci barke pàkk bu tedd bii ñu nekk lépp yemb ba ñu àndandoo oto yi daanaka dana fees kër gi waa waa ilaa sax daan jël ay biis di ñëw fii di ziar si wala ñu dem Touba di fekk sëriñ bi wala fu mu doon ci biir réew mi wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi ziar ñëpp di baalu ñëpp àq tey ñëpp àq jébal sëriñ naar kàddu gi mu jot la ay kàddu wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kaddu nag day gàtt rek ñu tënk ko ci ñaari kàddu ba benn ndax sa dex mi mboolem lu ma toon a leeral rek leerale na ko liggéey bi waaye nag kàddu cant daa munta ñàkk moo waral ñu yëkkati ko muy cant goo xam ne bi ne ñun waa ñun waa daayira bi Kanzul Muhtadina amel nañ ko suñu jëwrin ci liggéey bi nga xam ne bi ne nañ ko moom di ko liggéey muy kàddu ñaan nag ñaan gi nag mënul paas yi ñu ñaanal ko yàlla saa borom guddal aw fanam wéral cëram ba moo leen naal yi nga xam ne bi na am na ko ñu ànd koog moom bokk liggéey téeméer yu tàmm leen ren ñun ñëpp ci bi Sëriñ Touba ñaan yàlla ak ci bi sëriñ bi jafe-jafe yay nekk ci réew ma moo xam ay kayit la moo xam koom la bu nit di wut te amagu ko yàlla na ko Sëriñ Touba jàpp na ñu rafet njot lool suñuy jëmm nag te am yaakaar ndax li tax ñu am yaakaar mooy liggéey bii ñuy liggéey Sëñ Tuubaa xamal nañu nangu na ko seen liggéey bu tedd boobu ci seen daal ak seen kol ya ba sëriñ bi jox ñu ko jàppoo indi ko fii te juru gàmm lan demoon nag gàmm go la muy xat xat xat xat xat ba mu gisee ña ba mu bi ñaar gis kol gis dàll daana ñii lu mu xat-xat nañ leen woo ñu ñëw kon seen liggéey boobu lu Sëñ Tuubaa gërëm la loolu maa leen ko seedal bisu gàmm la mu xat xat ba sëriñ bi tegee liggéey bi bëtam daane lu mu xat-xat ñii nan fexe ñu ñëw nga xam ne bisu gàmm la may xat-xat 19 heures ci guddi fekk na ma biir kër sëñ Muntaxa man ak mbooloo na àndaloon sëriñ bi dugal ñu ca néegu boppam ba wax ma ci làmmiñal boppam ne ma nañ jël liggéey bi yóbbul ko ko poroxaan ca soxna maam awa dem ñu tegal ko fa bi ñu fii ci poroxaan soxna maam awa dem bi mu gisee liggéey bi naaw ko mu doon pas-pas bu rëy ci moom daf ñoo wax nañu suñu daara suñu école bi kat xale toog waaw na ay basang la ñuy toog te yéen seen foofee kat taamu nañ leen ci bagage yu baax kon ay makat suñ ko mënee am bëgg nañ ko ma fekk ànd ak sama jëwriñ suñ ma naar suñ ma naar daal koy xamal na ko liggéey bi kat insha allahu taala comme wax ngeen ko bëgg nañ ko dana am waxee gin ñaa Sëriñ Tuubaa matul fukk fan ak juróom liggéey bépp jàpp nii liggéey bi ci conteneur bi la tardé comme ni ma ko waxee ci biir kon ñun ñi nga xam ne bi dañoo nekk turki ku amoon yéeney def ak def ñëpp yàlla na Sëriñ waxaat jëwriñ kenn du ko jiital di ko fa kastal yoon waa ngi nii rek la su demoon ci Sëriñ Muntaxaa tey tey bisub tey bi jàngalaat nañu suñu digganteeg Sëriñ ndax Sëriñ Saliou moom sëñ Touba damaa mas a ànd mu dem di ko siyaare ji ba ñëwee lii ñu dal tey dal ñu kon na ngeen dalal seenum xel foofu laa dalaloo seenum xel lii ñu dal dal ñu moom sëñ ñaara seen jóob daal toog ba daal ne comme daa xat te sëriñ bi nee ne kenn mënta dugg yéen ñi fi toog yéen ñi ma àndal ñëpp toog leen xaar moom dong moo dugg gisee ak Serigne Saliou génn daan ne mboolem aajo joola am xool ma ba ma gisee Serigne bi Serigne bi sama waaye yéen na ma kon yéen aajo ju maa koy faj ndax Serigne bi tey la tax ñu am ko mooy suñu jëru lan àndal te gisante naak Serigne bi Serigne bi seer na kaddu ngërëm ci suñu kolam ba mu xam ko feeñal ay bëñam ree lool am ci mbégte daal di ñaan yàlla kon na ngeen dalal seen xel te ne aajo ñu fi indi Sëñ Tuubaa nangu na ko ñi ñaan ci doole yi Sëñ Tuubaa nag aajo joo leen fi indi yàlla na faju barkib Sëriñ Saaliw jërë ngeen jëfati